waaw kii de ben américaine la rek. <laughs> benn américaine la rek. defe naa ne yaa ji nag ah. Seynabou Fall. allo. waaw nit ñi dafa xaw a ruus. ma ne ko nee na dafa xaw a ruus. ndeysaan waaw. yee mais maa ngi leen di ñaanal nag bonne continuation yàlla defal leen jàmm. ba seen groupe bi liggéey bu yàlla defal leen ko ci dara. jërëjëf amiin amiin amiin amiin amiin amiin. ma ne ko kontaan trop ngeen nuyul ma jàkk ne ko maa ko faal. ne ko am na benn femme benn femme bu nekk fii États-Unis. dina dina ko dégg bu baax dina ko dégg incha allah. amul benn problème merci beaucoup. yàlla yàlla defal leen jàmm. amiin amiin amiin jërëjëf. maa ngi koy may sunu waa kër yëpp nguur ñi ngi tudd benn Ndeye Diène waa Fall sama yaay sama papa sama yaay mi ngi tudd Kumba Mbengue sama papa. Babacar Fall ñoom ñëpp maa ngi leen may sama tante yi sama bàjjen yi ñëpp maa ngi leen koy may sama rakk yi ñëpp buur dégg nga jërëjëf jëf ngeen tegalaat ñu clip bi. merci beaucoup waaw incha allah ko tegalaat seen bu moom incha allah jàppal na sa doom ji moom. Euh, saa yu clip bi jàllatee rek man bu ma ko tegee rek danaa ko may parce que ndeysaan nee na I like you. I like bi daal jën nañ ko dégg. ñu daal di jëlaat euh, keneen ku nekk ci ligne bi donc 88 628 22 22 allo. allo bonsoir c'est encore moi depuis Grand Dakar. ndeysaan nee na bon fi grande écart mooy suñu grande écart kay di woote. <laughs> waaw <laughs> euh, dama amoon beneen question bi ma toggee ci laa ko doon fàttaliku xam nga jigéen moom daanaka dañuy naan du mbokk. comprendre nga parce que bu sëyee rek lépp lay bàyyi papa yaay ak tout le waaw waaw. yow euh, ma faal damay laaj boo amee jëkkër ak sa kay faa. dafay sëy si. <laughs> defe naa ne soxna si allo Grand Dakar. waaw. defe naa ne tontu bi leer na de nee jëkkër ji dañ koy muur yàpp ko ci. karab bi di ko xaxaar bu sëy si. bu ñëw sëy si. maa du boobaa waa Keita lay sant. ah xaw ma de non il va s'arranger mais day sëy si. <laughs> allez je vous laisse. merci. waaw parce que ndeysaan soxna si elle est pertinente quand même ah da ngay gis ne parfois nit day toog ci këram sax. Ah, euh, euh, amay question yoo xamante ne ndeysaan day pertinente mais oui c'est mais c'est vrai que ne bon am na loolu tamit benn côté ça ça peut porter préjudice. Mm-hmm. Ah. donc gis nañu ah, donc Cécile Sow d'ailleurs mm-hmm. quand elle s'est mariée ci la retiré wu ndànk ci musique euh, malheureusement donc est-ce que ça cela ne risque pas de se répéter. ah non man en tout cas bon. mbëggeel dafa bëri doole de. non non non nekkuma si registre yooyu mais mais man sama rêve moom mooy am ay doom. te surtout mooy am ay doom mooy doom doom yooyu loo leen loo leen li may dund lu positif si dund mais lu positif surtout si musique te man xam naa ni xam naa ni loolu dinañ ko dund incha allah. incha allah ah, loolu am na solo trop mais Cheikh euh, actuellement yéen a ngi préparé seen album. Euh, bon disons ñu ngi préparer suñu projet. seen projet c'est plutôt okay. c'est plutôt une tournée. parce que album bi quand même euh, c'est voilà vous avez en train de faire son bruit. Ouais. on va laisser continuer à faire son chemin. Mm. mais là euh, en fait plus que dañu xaw a toog lu yàgg demuñu bitim réew. waaw là fu mu toll nii on est en train de de travailler sur une tournée internationale. et il nous reste qu'une semaine à faire ici. Mm-hmm. après on aura trois mois d'absence. carrément en tournée incha allah. ok alors donc ma dañuy gis ne tamit euh, yàlla def na ne euh, par exemple euh, li albinos yow nag doon nga ci ku ki nga xamante ne tey am nga kàddu ah leader d'opinion nga est-ce que am nga ay jéego yooyu def pour ñi nga xamante ne tey malheureusement ils ont été atteints par cette maladie. groupe Takefa créé na benn association déjà. créé na benn association depuis mai association mi ngi tudd. Care Albinos. carte de vœux yi nga doon wax sànq. waaw. ah mooy carte de vœux yooyu moom lañ doon jaay en décembre c'était moo c'était nekkoon suñu première activité mm-hmm. pour Albin aussi pour recueillir benn benn premier lot de médicament yi nga mm-hmm. xamante ne moom lañ leen distribuer distribuer nañ médicament yooyu depuis un mois mm-hmm. euh, si benn village bu tudd Ñaaxay c'est dans le c'est dans l'arrondissement de Yène et ah. bon ñi ngi continuer encore am nañ yeneen activité en vue ñi ngi préparer benn soirée de gala Euh, le 17 août incha allah. Mhm. Euh, ñi ngi aussi si ay mm, activité de parrainage ñi ngi bëgg aussi sensibiliser. Mhm. Euh, population bi sur l'albinisme les informer plus informer les albinos les albinos et les les donner leur donner surtout les dispositions de base pas les dispositions matérielles au mhm. premier coup mais surtout les informations pour savoir comment prendre so les albinos peuvent prendre soin d'eux même sans les crèmes solaires et ça bon ça déjà il faut juste faire beaucoup de bruit et ça marche inchallah inchallah et je pense que inchallah comme on dit euh, Dieu peut-être nous donnera l'occasion de les recevoir avant boobu ñu ñu jël ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum aleykum asalaam mbokk mi na nga tudd at fa ñu woowee Excited euh, baal ma ma leb tur bi maa ngi woote États-Unis au niveau de Baltimore Maryland waaw mais waa Baltimore waaye nuyul ma leen bu baax waaye mais fan nga dëkk ci Dakar fii maa ngi dëkkoon Pikine tali bu mag quartier Gazer. waaye bu ne maa maa ngi dëkkoon waaye yaa ngi dëkk foofu ba léegi de. Ah <laughs> wala da nga toxu da nga toxu nga yaa ngi Baltimore léegi saye. waaw léegi saye nag xam nga moom boobu la fi yàlla tegee ba nga am njaboot moom defe naa mooy loolu quoi. <laughs> yal na yàlla def ba euh, yàlla may la lépp nga ñibbisiwaat Sénégal réaliser incha allah la tax nga la taxoon nga dem. allahuma amin allahuma amin au fait dama doon woote doon la wax ne la franchement dama lay remercier Exideuse mm-hmm. parce que émission bi ngay def c'est très important mm-hmm. parce que man bu ma sañoon sax dañuy émission seeti bi je pense que ne yow yaa koy animé ba ba muy jeex ah waaw <laughs> parce que la manière bi ngay invité artistes yi di leen laaj seen début seen milieu seen xam nga fa fu ñu jëmaat ak yan projet la ñu am ak yooyu. Hmm. bon franchement c'est du professionnalisme. jërëjëf jërëjëf. waaw je sais que yaa ngi def ci beau boulot xaw ma ba xam ndax euh, nit ñi xam nañ ko mais man euh, en tant que euh, melomaan je sais que ne job bi ngay def yombul mais nag yaa ngi koy def ak sa xol sa courage xam nga. te ku invité sa plateau foofu di nga ko poser ay questions questions pertinentes koo xamante ne nii groupe bi buñ ko xamul woon sax. dina ko xam parce que à la manière bi mu leen di poser question xam nga di leen nekk leen ñu ñu fil à l'aise quoi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw man moom côté boobu maa ngi la ci félicité di la encouragé te di ñaan nag xam nga émission seetu bi moom xam naa ne bu ma sañoon yow kese yaa koy animé quoi. parce que vraiment <laughs> kat yeeg affaire yi yëpp naa yëpp am na yoon quoi. jërëjëf da nga baax rek da nga baax rek yéen bi àgg na ah. waay àgg na. waaw waaw léegi nag. am même temps tamit group boobu nga toogal noonu. waaw. waaw ñoom tamit ñu leen di apprécier parce que li ñuy def neex na. merci jërëjëf merci beaucoup. affaire bi rafet na jaar na yoon y' a rien à dire. merci merci c'est gentil. waaw man nag su ma sañoon nag xam naa ne seen tournée yi ngeen def ngeen bañ ko yemale au niveau de Europe parce que ñun tamit dem États-Unis tamit ñun tamit dañ leen soxla. dëgg la. waaw mais affaire. waaw affaire bi daal ñu mu yem Sénégal Europe mais tamit ngeen boole ñu si ñun quoi que tamit yéen defe naa ne seen musique. ñëpp a ko mën a consommer fi mu ne nii. même fii oh, même les américains mën nañ ko consommer. c'est pas du mbalax c'est pas du bon musique la. xam nga mm. ni genre musique yi tamit moom dañ koy soxla fii parce que ñëpp a koy enjoy ah. ñëpp koy enjoy musique bi ngeen di def nii. surtout clip boobu jàll nii sànq. waaw mais je vois que ne man samay doom ci la ñu juddoo mais. anglais rek la ñuy wax mais nag gis nga musique bii nii tax na tey jii seen olof mi ngi mi ngi mi ngi amal yore xam nga. mi ngi bu ñu di topp si way bi di laaj ki naan kii lan lay wax nga expliqué ko ko. donc mën mhm. je pense que ne musique bi ñëpp ko mën a consommer. absolument merci beaucoup. waaw man daal job bi ngeen di def moom rafet na trop trop trop trop trop trop. jërëjëf maa ngi leen di encouragé di leen félicité. ndaw soosu tamit moom tamit maa ngi koy suivre de de près parce que am na benn émission defe naa wareef la bu buñ ko invité woon tamit mu ñëw toog foofu noonu. Hmm. xam nga ñu koy posé ay question ci affaire euh, ni ñuy traité xale yeeg yooyu noonu moom tamit mu wax fa ay wax yu rafet moom tamit. Hmm. c'est ne wax bëgg fa yàlla daal dama la mën a ñaanal daal mooy seen musique bi ngeen di def. disque d'or bi nga xamante ne Youssou amoon na ko yàlla nañ leen ko am yéen ñooñu. amiin amiin amiin amiin tamit albino boobu nga xamante ne moom la doon te xam na ne tamit dégg nañ ci façon problème bu nekk ci affaire albino yooyu tamit tey jii tànk yi nga xamante ne Salif Keita te yàlla may na ko ak ndam yooyu ñoom tamit yokk soxna ci maa ngi la koy ñaanal yàlla na nga ko sut foofu mu toll. amiin te di leen wax na seen groupe bi nag su ma sañoon tey jii ngeen jàpp ko ak seen ñaari loxo parce que bëri na ci ay groupe yu mel yoo xamante ni nii kii woon na ay Sénégal juddoon Sénégal comme ay groupe yu meloon na xalam mais par la suite gis nga fu ñuy mujjee man je su ma leen yi ñaanal daal mooy yàlla boole leen tàppe xol yi ba seen groupe bi mu egg foo xamante ni wax dëgg fa yàlla dina wér si seen jot quoi. amiin amiin waay. man franchement musique bu ngeen di def na ma li ma leen wax ne Excited tamit mi ngi def euh, liggéey bu rafet. macha allah donc daal TFM daal je pense ne moom mi ngi dëggal euh, bépp immigré bu nekk fa si euh, si bi quoi. jaajëf jaajëf jaajëf. jërëjëf on est très content lool waay ñun ñu waa Baltimore bu baax a baax a baax kontaan nañ trop waa Pikine nag yàkkamte nañ nga ñëw tabax fa ay benn R plus 14 ah, immeuble bu mag waay <laughs> d'accord amul benn problème ma ne ci amul benn problème loolu dañu boole. yal na yàlla def ci poche yi dara. amiin amiin amiin. jërëjëf voilà donc moom nag mu nekkoon na euh, suñu euh, ndeysaan benn Sénégalais bu nekkoon na euh, Baltimore def na témoignage yu rafet. Mm-hmm. mais léegi li ñuy def nag mooy dama bëgg woon toujours sénégal yi liggéey parce que liggéey dëgg la wax baax na ci mais gis moo gis mooy gën a tax nit ki. apprécier li ñuy def donc damay propose waa téléspectateurs yi ñu seetaan euh, vidéo bi donc avec la complicité de Patrick et de Mansour ñu dem voilà donc ki nga doon gis noonu nag mooy euh, Jacques Keita donc moom la yàlla dof woon donc léegi fi mu toll nii nag dellu si na léegi nag gars yi <laughs> ça résonne avec ses frères et sa petite sœur ah mais am na am ngeen beneen rakk bu jigéen defe naa ne am nga. am na ñeneen ñaari rakk yu jigéen ñaari rakk yu am na kenn ku mu ci gisoon muy jàng management am na ku ci nekk école manager wala doon def management waaw am na ku ku nekk Saint-Michel. nekk Saint-Michel moom elle suit des études de gestion. gestion waaw elle a elle a elle a elle a bientôt 18 ans elle s'appelle Taro Khaykete et elle est en train de nous suivre maa ngi koy nuyu dafa réew. <laughs> xam naa ne wujj comme loolu la wujj wujj sa wujj la rek. jëm la sama copine nag sama copine. <laughs> <laughs> mais gars yi léegi euh, ñu tënk parce que ñu ngi. Euh, temps bi ñu ngi waaj a jeex. Euh, léegi fi mu toll nii ginnaaw bu ñu waxee projet yi ba pare. Euh, donc bitim réew fi mu toll nii on gis nañu déjà am nañu direction musicale. Mm par rapport ak li ngeen di def. Mhm. naa a eu la guitare électrique que vous avez mis devant. donc ça change tout. Mm xam nañu au moins style bu ñu am. mais par contre dañuy gis na léegi côté duo. du ñuy gis par exemple duo des morceaux que vous avez fait de duo on voit pas beaucoup de duo oui au fait euh, si album bi def nañu benn duo at euh, je peux le citer avec Nix ak waaw voilà mais donc on s'est dit que xam nga am na fooy toll da ngay soxla benn confirmation ok waaw par rapport ak sa carrière absolument tu le fais loolu soo ko amee après la tu commences à faire du duo mais kooku su sunu ay projet la bokk Okay. On s'est dit, on va faire vraiment un maxi de duo. Il faut que les gens, on va créer des surprises. Nous plans On est en train de, de, de traiter avec des partenaires, des, des, des, des amis musiciens. On travaille avec eux. Petit mm. Walisek. Ok, Walisek. Okay, Walisek, il y a, y a d'autres et d'autres que je ne vais pas citer. Donc, nous euh, Mais parce que moi, ce que je veux dire, vous allez pousser les Sénégalais

sama daf may sama dépasse. Ah, ok man damay déglu Santana lu bëri. Carlos Santana. Mm-hmm. Mm-hmm. damay déglu aussi un guitariste ki qui m'inspire beaucoup il s'appelle Jonathan Butler. waaw voilà Butler je l'écoute je l'écoute beaucoup. il fait les plus grands festivals de jazz. voilà effectivement moi ce sont mes mes repères il aussi un musicien talentueux qui est ici. Mm. Jeannot. non Jeannot. non non. si on cite des grands à l'étranger, ouais. moi aussi je respecte tous les musiciens qui sont ici. Ouais. Jeannot, il a fait beaucoup. En fait, moi, peut-être que je suis le premier guitariste qui, qui, qui va le dire. Ouais, qui, vrai. En fait, qui, bon, je, je, le, je le, dis quoi, je le reconnais. Absolument. En fait, parce qu'il a beaucoup fait pour les jeunes, pour les jeunes instrumentistes. Jeannot, moi, il faisait appel aux jeunes pour leur dire chaque mercredi, venez chez moi. Nous jouons guitare. Nous jouons guitare. Et tu retrouvais tout le monde. Mm -hmm. Tu peux demander à d'autres guitaristes, ils te diront. ndeysaan te il voyage il fait des tournées ah nit ñi duñ ko xam mais il fait des tournées jano di dem bitim réew di jouer ci ay festival yu mag ah donc il joue aussi avec ses loolu c'est important mais yow léegi maa lan mooy sa yan artiste ngay ngay balaa ñoo daaneel yan artiste ngay gën di déglu Salif Keita waaw Salif Keita euh, Salif euh, laay gën a déglu hmm. mais aussi euh, maa ngi déglu en même temps musique moderne Euh, j'écoute beaucoup de. Salif Keita lan moo lay le ban qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attire chez Salif Keita sa musique je dirais que Salif Keita je dirais plutôt que lien la. je ah, dirais que ah, lien la ok. c'est c'est la la musique mi ngi si. Mhm. mais c'est plus le lien c'est plus mm. les liens. Mm. déjà que entre Keita on est très liés. absolument. entre musiciens on est encore plus liés. Ouais. entre albinos on est encore Quoi? plus liés. d'accord et ça ça, ça ça explique tout daal. absolument bon j'entre pas dans tous les détails bon uh -huh. c'est ça. man bon Salif Keita j'écoute beaucoup Salif Keita mais j'écoute beaucoup aussi la musique moderne comme j'ai dit j'écoute beaucoup de P Square. Peace Corps waaw ñoom booy dooj nañu temps yooyu tamit. waaw je am man j'aime bien musique boo xamante ne dafa am sensibilité. Mhm. sensibilité j'aime bien musique boo xamante ne dafa am entrain te ñoom seen mhm. dafa am entrain. absolument ah, moo tax man j'écoute j'écoute et j'aime bien ce qu'ils font et bon voilà. c'est super parce que vous avez vu le langage musique. qu'on est en train de développer sur ce plateau. Et c'est je pense que ce que les téléspectateurs ont besoin parfois ñu gis ne des gens qui sont là les musiciens que vous voyez c'est des gens qui quand même sont à un niveau boo xamante ni ils sont capables de parler musique et ils l'ont démontré sur le plateau donc loolu am na ci solo trop looy def lu ne boo ko jàngee bis boo waxee nit ñi gis différence. Mm. et c'est bien continuer toujours sur cette euh, sur cette lancée comme lu ñuy wax toujours euh, lu lu juba jeexul jógu fa il faut toujours la. persévérance et constant et je pense que ça va payer donc léegi gars yi nag sama dix questions yi yi nga xamante ne Mansour ñoo ko togg ci kaw at euh, sama gars yi ci kaw les les ñaari héros la hmm. dañu am ñoom seen question questions dix questions la ah papa boobu ko waaw donc euh, ñu commencer par question Mansour Mansour mooy poser question alors Mansour nee na lan mooy sa plat préféré maafe maafe <laughs> Cheikh lan mooy sa plat préféré ah, wala jaquette lan mooy plat préféré plat préféré boobu ceebu yàpp. weex ah. waaw ah, yow ceeb bi placé pour le dire. alors euh, kan mooy ban ban musique moom la moom mooy bi la gën a neex au Sénégal yan ban musicien ci mbalaxmaan yi kan moo ci gën a neex kan nga ci ki la ci daaneel ki nga ci ki nga sentir. ci mbalaxmaan yi. waaw. c'est qu'on a beaucoup de grands de. bari na de ah. on a beaucoup de grands ici mais franchement moi j'ai un énorme respect pour Youssou su Youssou Ndour ah. waaw ah. Mamadou Ndour de. kër gi laa besoon waaye ah. Cheikh. man Youssou Ndour. waaw waaw Youssou Ndour parce que il a beaucoup fait et un repère. Mhm. ñun dañ koy wax suñu kër. donc mhm. euh, on en discute loolu mhm. du ma si sori. mais c'est un repère pour nous. absolument léegi nag ci rab bi. ci rab waaw. ci rab man j'aime bien Daara J Family. Daara J Family waaw j'aime bien Fada Freddy. Fada waaw Fada. bo defe naa nekkoon dañ nekkoon États-Unis sax d'ailleurs parce que Fada mi ngi nekk di préparer album solo am donc temps yi ñu ngi loolu États-Unis bu baax a baax a baax d'ailleurs sori nañ ci presque jeex na. Mm-hmm. donc euh, mais Cheikh lan mooy sa kan nga ci rappeurs yi kan nga ci sentir. rappeurs yi man. Euh, moom dafa bëgg dafa bëgg tontu sama place quoi en fait <laughs> man au fait y a y a y a un rappeur qui son texte m'a m'a m'a carrément impressionné. ah c'est un jeune Mamxa. Mam Kha. Mam Kha ah, voilà parce qu'il écrit. il écrit vraiment bon am na si benn morceau boo xam ne dama ko doon déglu en boucle tu vois Dóor waar bi. Dóor waar en boucle voilà. ah mais léegi euh, sa meilleur football footballeur quel est ton footballeur ki nga bëgg. fini ah, euh, waaw sa meilleur. Sénégal ci équipe nationale. mooy de 2000 à 2013 ah. Fadiga. Kalidou Fadiga. Mm-hmm. jeex na yow Cheikh. Koli. cëw wax ko 2002 ba léegi Sénégal yi dañu des 2002 <laughs> ah. ah xaw ma ne ñu des ci boppu gars yi ko ah, ah doy léegi nag ci ñu dem ci léegi ci euh, Patrick question Patrick. donc euh, ci làmb ji. kan mooy seen seen lutteur préférément. man sama lutteur. waaw Tay Shinger. cëm Tay Shinger. jeex na waa Kaolack kontaan nañu. waaw Cheikh. man guy gi mooy sama mbër. guy gi guy ah. gi mag Jacques. yaa ngi chaque à chaque tamit guy moo moo koy daaneel. léegi quel euh, on va parler maintenant de euh, de l'international. Mhm. waaw léegi ci taasukat yi parce que ñëw nañu ci mbalaxmaan yi ci rappeurs yi mbëri taasukat. man nag xam kam moo ma neex. Hmm. kam moo ma neex ba neex ma neex ma. Njole. Njole ah. waaw waaw Njole waaw parce elle bon elle est elle est naturelle moom elle est naturelle parce que dangay gis da gis ñu bëri ñi nga xamante ne bu ñu nekkee ci yenn kii dañuy ut ay physiquement dañuy ut ay excès. waaw mais elle dans sa naturalité et moi ça j'aime bien. ah Ndiolé danaa la jël nag fii ñu ñu ñu raag ma yow. waaw ah, man Pape Ndiaye Coppet. Pape Coppet ah. Pape Coppet bon. c'est voilà non non plein, absolument. C'est un artiste vraiment. Euh, et puis voilà, quoi, il est free. Mm. Il est tu, sens que vraiment c'est de l'art quoi si tànk yi ba ci kaw bopp bi voilà quoi. non moom actuellement soo gisee di nga gis na dafa dof na parce que jeune bi mi ngi bëgg a génn. donc euh, il est fou mais bu demee ba téye jeune am. dof bi am na solo il Sénégal ñu am problème. dëgg euh, léegi bu ñu ñëwee côté quel est ton acteur préféré de film. mon acteur préféré. bu leen ma reetaan de. waaw bu leen ma reetaan de. jet jet li jet jet li. jet li <laughs> ndaw loo yow xam naa fi ma la yóbbu centenaire laa lay teg rek. boole laag bokk foofu chinois yi léegi moom ngeen am promotion léegi léegi mu gaaw léegi. Cheikhou quel est ton acteur préféré man c'est Will Smith. waaw Will Smith ndeysaan moom it acteur bu mag la. oui que je partage avec ma petite sœur Daba Keita. qui qui ah, l'aime beaucoup oui oui oui super oui. ah mais c'est léegi nag ci woykatu traditionnel yi. mooy ñi def woy traditionnel yi. Samba Jabari Samb Samba Jabari Samb. waaw si si euh, c'est vrai que c'est une bibliothèque. waaw moom kañ macha allah. absolument mais est-ce que yaa ngi def dara pour rap jege ko xool ay ay parce que quand même yéen a bokk peut li ngeen di def nañ côté moom chorale. waaw mos nañ daje fondation Sonatel. d'accord waaw mos nañ daje fondation Sonatel mais loolu yàgg na man xaw ma sax ndax mu ngi fàttaliku loolu ba léegi mais je me souviens que man ak Cheikh après dem nañ rapproché aussi moom nuyu ko félicité ko. Mhm. félicité ko si lu muy def te remercier ko parce que ñu dañu soxla ay nit ñu mel noonu ñi nga xamante ne ce sont des exemples de la musique traditionnelle sénégalaise ñu ñuy woon yoon bi. waaw léegi Cheikh ci musique traditionnelle. man c'est Yandou Yandé Kodou. Yandekodou. Yandekodou, voilà, sa voix magique. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est l'Afrique, c'est le comme on dit, c'est la négritude. Voilà, et man man lu may yàgg wax mooy ni si on voit par exemple benn Césaria Evora. Mhm. bon kii dem ba am yenn âge yi mën a nekk star planétaire. Mhm. donc fii war nañu mën aussi di gestu. ñu mel ne ay ñoom yandi koddu ñoo xamante ni ce serait dommage c'est vraiment dommage. Mm. ñu nekk fii. Mm. Sénégal rek di leen jëriñu parce que je me dis que euh, at yu Césaria amoon. Mm-hmm. yandi koddu est la vieille. absolument fois plus. absolument oui mm-hmm. c'est juste un appel quoi. absolument gars yi donc yegsi nañu ci euh, njeextalu euh, émission bi donc ma bàyyi la ngeen tàggoo donc ma ma bàyyi la nga tàggoo téléspectateurs yi. waaw ñun ñi ngi ñi ngi remercier ñëpp. ñi ngi remercier képp ku ñuy seetaan ñi ngi remercier maa ngi remercier encore personnel wu groupe Futur Média yi yëpp te ñi ngi leen di ñi ngi leen di baalu àq ñi ngi baalu àq suñu voisins yi nga xamante ne saa yu ñuy répété dañ leen di tànkal ñi ngi tamit nuyu suñuy parent di leen gërëm maa ngi nuyu sama yaay bu baax di ko gërëm di ko gërëm ah macha allah macha allah macha allah waaw Cheikh waaw di la remercier yow Exades si invitation bi di euh, féliciter waa TFM pour le travail magnifique qu'ils sont en train d'accomplir mm. et aussi di wax ne Jacques le fou il nous manque waaw waroon na fi nekk instant je sais qu'il est en train de nous suivre mais booy ñëwal gaal ñibbisi <laughs> nam nañ la tu vois donc euh, salaamaaleykum jërëjëf Voilà, donc vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup parlé de Jacques pour la simple raison dinaa leen recevoir inchallah ci yeneen émission mais ce sera boobaa nag on va beaucoup plus parler de lui mais tey on s'est vraiment focalisé sur le groupe en tant que tel euh, defe naa ne yéen ñi doon seetaan euh, ci biir réew ak ci réew yi kontaan ngeen trop euh, inchallah dimanche prochain beneen émission la ñu leen di fàttali encore ak li nga xamante ne mooy clé du bonheur donc toujours mën ngeen participer donc banderole banderole bàyyi noonu di jaar ci suuf yéen ñëpp képp koo xamante ne rek mën nga tante sa chance am kër am oto am xaalis yaa ngi dégg donc mën nga ci jouer participer tu envoies tu envoies juste euh, clé au 26 4 44 donc quant à moi je vous remercie bien mais man dama benn surprise ma leen bëggoon euh, bëggoon def ci kayita bi euh, sama yaay kayita la sant. non ah, sama yaay c'est la petite fii de Sunjata Kayita direct. je suis avec Keita. <laughs> <laughs> donc ah mais oui donc. Keita ah Keita, ça c'est cool. donc c'est euh, comment on dit. loolu moom dama la ko doon. je comprends beaucoup de ah, choses. ah voilà donc ma ne ci bambara yi gisoo bambara yi moom bu ñu. bu ñu tasee du ñàkk day neex. waaw effectivement moo tax mu neex. neex na voilà donc merci chers téléspectateurs merci encore à mes deux héros qui sont là-haut donc Mansour merci donc au son et Mr Patrick donc Régie donc quant à moi je vous donne rendez-vous inchallah dimanche prochain prenez soin de vous et bonne fin de soirée ciao. Muchami mochina huyu koya yii maamu maamu laale yii